amoon yàlla jagleel ko ko mu ko def ci kaw suuf et je pense que ni ñuy gis nii ni xale bi mu ngi ciy topp lu mu ko gën a dëgëral di gën a waxtaanal aussi ay papaam mu baax parce que ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay woon fi ngay toog et je pense que mi ngi ci yoon woowu man daf ma bàyyoo rek te yàlla tax mu ñëw ma fi pour wàll dama ñëw pour pour coon parce que sama magi bopp la coon bokk na ci ñi tax ma gëm ni man ndekete waykat laa parce que dafa ma ko wax ci sama benn émission boo doon def takkusaanu Ndakaaru mu ni ma Alioune Lo Mbaye Nder ma ne ko naa mun ma xaw ma kuy sa yaay ma ne ko Ndeye Ndiaye sama yaay mu ma soo amee ñaar jox boo amee ñett jox ko ñaar ñi ma ko loolu lay def mun ma yoon wi dafa xat lool waaye bu xonte nga ba bokk nga. drapeau bi dem na maanaam Thione Seck dafa bokkoon ci drapeau yi nga xamante ni maam ñoo taxawaloon Sénégal jikko yi rafet. yi nga xamante ni moom la doon imposé sénégalais yi wax dëgg yàlla wane na ko ci wane na ko ci bépp fan Thione Seck ba ci solinam du def lu vulgaire nit la boo xamante ni wax dëgg yàlla man abu ci Thioubalokat bokk naa ci ñi nga xamante ni man moom moom ma yar ndax lépp loo xamante ni wàllu aar la yàgg na ma cee conseillé rawatina ci bi muy bi muy mujjee def projet bii nii man bokk naa ak moom ñett morceaux ñu waroon def def ñaari mu des benn. tey benn boobu fa laa gisee Thione Seck ba def ko moom comme tey mi ngi ci këru dëgg ñun ñu ngi ci ay caaxaan yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana na ko Sénégal yëpp ñaanal mooy ñaan képp kuy mag ci dëkk bi kuy kilifa boo julee bu ko fàttee nañ ko ñaanal te xam ne billaay walaay def fi lu ñaaw luñ koy xoolee ci réew mi tey demam gi nii maam dafa yee leneen ku ne xam na Sénégal fi mu jógee mais Thione Seck ku mel ni moom ci ay way ku mel ni moom si jikko ku mel ni moom ci gëm yàlla et li ma gën a neex ci moom mooy ay woyam yëpp boo ko c'est que boo ko seetloo boo ci gisul yàlla di nga ci gis yonante bi calculer la xoolal calculer rek mooy woykat bi njëkk osé di woy di gëmloo nit ñi ni alxuraan mooy dëgg dafa bokk ci ay woyam comprendre nga muy koo xamante ni imposé na boppam ci ci maam ci cadre personnalité ba pare nekk parolier lu coon sekk wax dëgg la yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana yàlla na yàlla jël njabootam gi teg ci loxo yàlla bu leen kenn reetaan fi mu nekk yàlla na ko gënal fii junni yoon